jërë ngeen jëf euh, mbokki euh, internet yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi leen di euh, jaajëfal Ngagne Demba Touré dal di yëkkati ay kàddu foofee sa moom Ngagne Demba Touré nag ma nga yëkkatee kàddu yi foofee ci ambassade Sénégal ba nekk foofee sa Mali moom maître Ngagne Demba Touré nag mi ngi yëkkatee ay kàddu mu jëm ci patriote yi moom maître Ngagne Demba Touré mi ngi bàyyi loo xel képp kuy patriote élection présidentielle yi nga xam ne rek moom la ñu dëgmal nga daal di koy bàyyi xel bu baax baax te it nga daal di wàcc. moom maître Ngagne Demba Touré nag jot na faa yëkkati ay kàddu ya nga xam ne nii yu am am solo la rawatina nag ñi nga xam ne ñooy safoo kii di ya président Ousmane Sonko nañu àndandoo daal di déglu kàddu ngañ Ngagne Demba Touré yooyu mu yëg nañu wuyu peuple bi ci méthode yi muy exprimer colère te peuple bi stade yi la am marché yi la am grand place yi la am école yi la am université am terrain de football yi am askan dinañ def xol mënu ci dara magistrat nga wala ministre de l'Intérieur, nga ministre de la justice wala président de la République bu sa xol bi doon dag ba koy sa loxo sénégalais yi Ousmane Sonko nañ def ah ah ah candidat ñu jëm ci ay opération am solo élection présidentielle ak opération parrainage opération retrait suñuy carte d'électeur. waajal jërë ngeen jëf mbokki internet yi ginnaaw kàddu yi maître Ngagne Demba Touré yooyu nag ñoo ko bokk dégloonoo moom maître Ngagne Demba Touré nag mu nga sa diwaanu Mali waaye teewul nag ma ngay continuer xeex bi nga xam ne rek sumboon na ko fii ci Sénégal moom maître Ngagne Demba Touré nag ma ngay wéyal xeex boobule dégg ngeen kàddu nga xam ne jot na koo yëkkati foofee sa diwaanu Mali ma ngay xam ne nag ñii di ay sénégalais ñi nekk ci réew mi rawatina nag bitim réew ba ci fii ci réew mi ñoom ñëpp nag kii di président Ousmane Sonko Sonko lañ daal di bëgg loolee nag waruñoo nangu kenn rek di leen ko xañ ba tax na rek mu naan leen nañu wàcc ndax élection présidentielle yi di ñëw nii nag dañoo war a jëlee ñi fi ñi nga xam ne rek ñoo nekk fii ci réew mi daal di fi teg ki di président Ousmane Sonko mu daal di doxal rek daal di lijjanti réew mi.